Soundiata Keita sa maam le roi d'Afrique Soundiata Keita mooy sa maam ku la lekk jee ku réew wàcc ma daan naa la wóorul ku la dangay féete kaw waa jaa ngi nii le roi d'Afrique. salaamaaleykum àdduna salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum yéen ñii di safo seetaan CIK TV Sénégal seen bu mag bi xew ci jamono ci àdduna bi nee naa la boo bëggee xam lépp luy xew ci Cheikh Ibrahima Keita ci kër gi. ak ci sama gars yi da ngay ñëw abonné ci chaîne bi di nga gis lépp. tey nag ñu defaat plateau spécial kaay fii ñu leeral ànd ceeg kan sama ñaari gars yi mais sama ñaari gaa yi tey amee an sa waay. sa waay dafa voyagé yi. Ah. ko xaw a yónni fenn quoi. noonu la. te ñëwaatagul quoi. ndeysaan mais bu soobee yàlla léegi léegi ngeen gisaat ko bu soobee. incha allah incha allah rabbi waaw mbokk yi yéen a ko gisandoo tey yéen ngi am Ameth ngeen di gis ni ci plateau bi waaw. Ablaye doomu un dafa am yu ndaw yu muy sa plateau sa boisson di xel di nan li bi ko waral rek. le Khalifa euh, général de tous les temps. le Khalifa général de tous les marabouts. Le traditionnel. le roi Mandé le roi Mandé. ah le le Ninki Nanka de tous les temps. Uh-huh. waaw. ndeysaan di de le roi Mandé. borom xam-xam bi borom xam bu leer bi. borom nga barki bi Cheikh Ibrahima Keita mhm. ci kaw si kanam ndeysaan waaw mhm. ku bëgg wér mhm. bëgg dëgg ñëw Cheikh Ibrahima Keita dafa leer nañ ndax moom mooy faj nga wér du te duñ la filmer te jàmm daa ngay am ndeysaan fii daal mooy kaay kaay leen si jàmm ndeysaan Cheikh Ibrahima Keita jàmm rek lay wër maanaam kaay wér kaay wér la tudd fii kaay wér dafa leer nañ kaay wër comme ñu ne bu nee nii kaay fii ñu leeral. Hmm. fii tamit kër gi kaay wër la tudd. dëgg la Cheikh Ibrahima Keita da lay faj. ba nga wër. dëgg la barke Serigne Touba. ndeysaan Cheikh Ibrahima Keita. tey hmm. Cheikh Ibrahima Keita. le roi Mandé. le roi Mandé. <laughs> le roi d'Afrique. le xalifa général de Soundiata Keita le Ninki Nanka. de tous les temps borom jinne yi. barke Yoro Ndiaye nee naa la xam-xam dafay leer Saliou. Uh-huh. ku bëgg lu leer ñëw Cheikh Ibrahima Keita. Uh-huh. Saliou. Uh-huh. ku bëgg faju wér. Mhm. ñëwal Cheikh a Keita. dëgg la dafa leer. le petit fils de Soundiata Keita. dafa leer nañ. le roi Mandé. Uh-huh. du nu noppee wax. wallaahi. ndax Cheikh Ibrahima Keita chaque jour mu wane. preuve. am na point boo xam ne foog ñu dugg ci. mooy uh-huh. dafa doy waar ah Salim dafa garaaw. ah Salim. maanaam daf ci am sëriñ soo xam ne nii. Uh-huh. ñu fii Sénégal. mais dégg naa dañuy lekk ba lekk jur ñoom. loolu tamit man daf ma yéem. dëmm am na de. waaw man mënu ma comprendre nit. dëmm am na. nu mu mënee jur nit di ko def dëmm ju ñaaw jooju maanaam ñi nga xam ne dañuy masqué woote sëriñ or que duñu ay sëriñ ay nitu guddi ah, xam nga ne am na waaw am na. xam nga li ma lay wax est am na. non dama man affaire bi man dama daf daf ma yéem. dëmm am na. man xaw ma noo mënee jur nit di ko coow. dëmm am na. est-ce que. dëmm am na de. non dafa leer. dëmm. Uh-huh. dëmm du kuy naan deret rek mooy dëmm de. déedéet. wala kuy dëmm kuy jël kuy jël nit rendi ko rek lekk ko mooy dëmm de. Uh-huh. da am sa doom. Uh-huh. lekk ko. Uh-huh. <laughs> allahu akbar. allah yu def yooyu noonu dañoo bëgg seen xam-xam yokk. ñoom ñooy mooy maanaam. maanaam féticheurs yi maanaam sacrifice lay mooy féticheurs yi. mais sacrifice ba sacrifier sa sa deret lu jóge ci yow. mais loolu xaalis moo leen ko jaral xaalis. الله أكبر ساليو خالص دلوك دلوك جرال الله من ده خالص جرال رمادي والله ساليو دام لي خالص لي نمو جرال رئيس بابا ولا سياي كم بونزور دل ده خالص خالص خالص ده في اليمن دام نيو خم خاتم نيالا خير نيو ديال سوبا دام نيو خم نخلات نيو ديال سوبا لو نعيش جوا سدوم لكم doy di sa doom lekk ko. Mhm. parce que bëgg nga augmenter ay galaw mhm. seen ñuy def noonu bàyyi leen ko <laughs> yéen sëriñ si ñuy yéen sëriñ si bàyyi leen loolu mhm. amoon na ay temps amoon na benn femme bu ñu woon dafa demoon si benn kër ndawe sëñ bi c'est la. waaw. di ko defloo yëfu bu tëddee ba guddi mm. benn kii la village la. Mm. léegi bu tëddee ba guddi sëñ de. Mm. léegi ay taalibeem da leen di woo day woo ay patient bu amee ay patient da leen di jàngal allahu akbar maanaam xam-xamu de xam-xamu la jàngal parce que la. avion. deret da koy dawal mhm. dañuy dem ba si biir mhm. boo fa demee mhm. boo fa jógee dëmm ngay doon allahu akbar ba jógee si taal si kii boobu noonu si village boobu dëmm ngay doon ok ma ñu ne sëyñu dëmm yi na si town bi même au Sénégal fii Dakar Ndakaar Ndiaye am na ay sëyñu dëmm mais Mouhamed doguma la mais dafa xam loo xam ne foog ma laaj la ko. Hmm. damay gis fii patients yi fii ñëw nii par jour. Hmm. ku ci ñëw du bokk ak moroomam te ku ci nekk damay dégg damay gis ne yéen ñaar seen nuyoo ñoom dafa am bërëb boo leen daje woon. Hmm. après ñu ñëwaat fekk la fii ñooñu dafa am foo leen xamante. waaw ñooñu samay doomu ndey lañu samay xayit lañu. Uh-huh. ñoo xam dañ ma fekkoon bërëb. ñu sonn ba dee. xamuñu gisuñu tan ñu leen def loolu lu ne Ibrahima Kayte uh-huh. ni booy borom jinne yi uh-huh. mooy faj mu wér uh-huh. ñu ñëw buñ ñëwee tamit xamal na ni ma ni ma am na fi nga nekkoon foofu baaxul dëgg la xamal na ni ma fi nga nekkoon baaxul bu baaxoon ñu ñii du la fa fekk te yow yàlla la dimbali dëgg la yow Ahmed yàlla la dimbali ndax ñun gisoo nañ la gis nga ni nga meloon ak ñun kon tey boo ñëwee fii si Cheikh Ibrahima Kayta am na lu tax. dëgg na ndax yow doo dox si lu dul dëgg. dëgg ma amel yow doo si lu dul dëgg. Mm-hmm. si lu doo ko dox. Mm-hmm. boo gisee ñu am fit ñëw. Mm-hmm. ba nga ne bëy yu ñaxaate yi danoo bëri. ak ñi tëddee jabalu jàmbur yi ñuy tëddee jabalu yi danoo bëri. ci seen i dafa leer nañ. Cheikh Ibrahima xëy na moom amul taxaw loolu. Cheikh Ibrahima Kane faj la la nekkee si dëkk bi. faj nga wér. nga jóge ba États-Unis nga jóge ba France. nga jóge foo mënti jóge. boo jógee woon sëñ boo mënti jógee. boo jógee sëñ gisoo tan mhm. boo ñëwee fii ci benn fan. wallaahi la xool say mbir. nga gis tan nga gis tan dëgg la mhm. seen ñuy naxaate yi nañ ko bàyyi. wallaahi. nee naa leen. Mhm. fii am ay caaxaan. déedéet mosu fi am. fii foowuñu. foowluwuñu. déedéet liggéey faj doomu aadama yi moo tax a jug. Cheikh Ibrahima Keita ndeysaan ñun bu nekkee fii di wax. Mhm. waxuñu pour pour nooyal. doo nooy wax. parce que jàppale bëgg a jàppale sénégalais yu feebar yi. wallaahi te bëgg a wéru. Mhm. bëgg bëgg a wér étranger yu feebar bëgg wér. Mhm. feebar foo mënti jugee. fépp foo jugee ci Afrique. boo ñëwee ci Cheikh Ibrahima Kayda. mu faj la ba nga wér peeñ. dëgg la wax du jub bal du tàkk. saa yu Cheikh Ibrahima nit ñi la fi nekkal. sama sëy nit ñi na fi nekkal. Mm-hmm. dégg naa tamit am na ay sëy ñoo xam ne ñu ngi koy toppandoo. non ñu ngi koy toppandoo man loolu. léegi naan euh, preuve preuve à l'appui man laa ci am parce que mënuma comprendre Cheikh Ibrahima Keita def sorti toog ndeysaan Cheikh Béthio yàlla na ko yàlla yërëm te yokk koy leeram laata muy génn àdduna Cheikh Ibrahima toog mm-hmm. fii ñu def plateau mu ne Cheikh Béthio Thioune la koy faj nekul bitim rew mu ngi fi ci Sénégal te bu ñewé inshallah rabbi dañ ci def lu ñu mën ci carton yàlla day wér wallahi du wéré bitim rew réew tegu ci semaine Cheikh Béthio laaxu Cheikh Béthio li koy fajj nekul mbiru tuba na fexe xol mbiru ñaan moy fajj Cheikh Béthio Thioune parce que dafa am lo xamanteni ni c'est pas naturel feebaram bi du feebaru tuba waaw na baye xel bu baaxa baax ci limay wax parce que man weesu naa fi may waxee loo xamante ne nii waaye dafa am loo xamante ne nii. boo ko seetee rek. ay mbiram c'est pas naturel. waaw na wut ay ñaan. mooy li tax mu am tan li tax mu am jàmm moom ci boppam dafa soxla ay ñaan. xam-xam dafay leer nee naa la kii ay jinne la yor lu leer nañ. jinne yi ñoo lay diagnostiqué xool leneen ci yow ñu ne lii ak lii ñoo ne ci yow te loolu lay doon. kii du wax waxaat déedéet xam-xam day leer mbokk. ba tey ndaysaan monsieur le premier ministre moo ami suma xarit wax dëgg yàlla message bi di ngeen ko gis léegi message bi ñu bindante man ak premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne ndaysaan moom dafa am ñoo xam ne dañoo amul xam-xam xamuñu ni ñuy waxee xam ñu ni ñuy defee ci àdduna nee nañu Mohamed Boun Abdallah Dionne pour mu maanaam xam nga nit liñ naan euh, taal bu bëggee booy fu nekk leen koy ëppee waaw ku fay fu ne ngay ëppee pour nga kii xam mais alhamdulilah premier ministre tànne na bu baax a baax a baax baax mu pour une Sénégal actuellement ay rendez-vous pour convalescence parce que en convalescence mais day xaw a des tuuti tuuti yaram day dem donc d'ici peu de temps il sera là avec nous donc Masha'Allah, premier ministre il na la yàlla defal jàmm ak Il ak ngi da ngay le da biir Kenya fajal leen di faj ku nekk ci biti mais mooy toppandoo bi Cheikh Ibrahima toog na ne Cheikh Béthio la koy faj mu ngi fii ci Sénégal yow waa Kenya di ubbeeku na waa Kenya wéruñu nga doon faj koo xam ni premier ministre un buy ñëw day ñëw ci day ñëw ci i ka sëriñ ñi bëgguñu si xaalis buy ñëw premier ministre buy ñëw day ñëw ci ku am xam-xam day ñëw ci ku am crédibilité mhm. day ñëw ci ku am ay jinne mhm. day ñëw ci ku yor xam-xam wu leer naññ mhm. te foru ko jéggaane wu ko yow xamoo dara mënoo faj nit mu wér xam nañ ni mu demee yaa ngi comprendre yow Mariama mi nga xam ne nii moo feebaram li ko dal moo gën a yomb ci Cheikh Ibrahima Keita yow loolu mënoo ko faj ci Mariama nga bëgg a faj leneen yow dañuy fonto loolu mënta ne quoi Mariama ñëw et puis xam nga nga facturé ko lu bëri fajoo ko nankaan jinne nekk yow nekk nitu guddi moo ko jàpp yow mënoo xool ba xam ne ne ci nit donc yow amoo xam-xam Saliou jàngiwaat war na la Saliou uh-huh. Saliou nañu uh-huh. ñu ne noonu sonn nañu dimbali uh-huh. ku mënul faj da ngay toog. wallaahi. fii Cheikh Ibrahima Keita moo fi ne. dafa leer rek. ku dem feneen nag joxe sa xaalis yaa ko tey yàq nga sa xaalis. dafa leer nañ. boo bëggee wér. bëgg a nekk nit normal. fii la dof yi di wéree fii si kër gii. wallaahi. Ibrahima Keita mooy faj dof yi. mooy faj nit ñu manqué ñi. mooy faj ku rab dugg. yaa ngi dégg. ku tële. Cheikh Ibrahima Kayta moo si aay. dëgg la barki dem moo njaay. Mhm. la fi benn ndaysaan benn taalibe indi fi lu ne lu ne jën. ndaysaan Seydou. indi fi ay jën yu bëre. Seydou Gueye ndaysaan. ak yeneen ak yeneen. dëgg la ñu koy indil fii. Mhm. ñoo xam ne dañoo en difficulté. ñu ñu metti. xam ne dañoo sonn seen àdduna. doguma la mais Seydou moom noonu <laughs> est xam nga ne moom am na bërëb bu mu demoon. ñu koy yëgloo ci ay garab di ko sangaloo ci ay garab lu nekk ñu koy def. même marabu boobu noonu moo fi tëddee jabaru jàmbur même marabu boobu moo ko def loolu même marabu boobu la keneen ak keneen di dem mu leen di ndax di leen lekk te nday sànni mooy li ma waxoon keroog rek yaa ngi lekk euh, loo xam ne nii waxuma la riba lay doon ci yow mais deret lay doon ci yow deret mooy nit ki day liggéey ñaxam nga jël ko mu leer na ni kii yow mënul am ci yow tan nga ne da nga koy faj nga jël ko lekk xaalisam nax ko lolu dread la lolu du du la res ba ba fa wax deug yàlla donc nit ki boy lek da ngay lek lu la lew conseil boobu man maa la ko jox. boy lek fexel mu lew boy fajj fexel ñu wér. comme Cheikh Ibrahima Keita ni koy defé lolu xam Saliou. de day am. deug la Saliou de day am. million yi bo lek yàlla ba deureum la koy récupéré par fistine la koy jëlee sa yaram. wallahi mais mu ngi feeñ. alaaxira ak xat. ndeysaan. ngir yàlla dégg naa ñu jël seen seen seen seen seen seen bopp teg ko place yàlla. Mm-hmm. am na benn suur. Mm-hmm. am na benn taalibe bu bu nekkaloon. Mm-hmm. dama ni ko kii dafa tegoon moom mooy yàlla mu mere ma si. mu mere ma si. ne ma lu tax ma wax lool waaw loolu yàgg lu lu yéeme laa lay wax. nit ku bëgg a boppam jël si def ko place su yàlla. Mm-hmm. loolu fu mu am. déedéet amul fenn. ah. Mm-hmm. yow doo yàlla. Mm-hmm. doo yënant. doo wàllu. wax doo fay nit mu wér. lakkale nga. amoo. crédibilité. ah merci Saliou. ñàkk nga xorom ñàkk nga xorom <laughs> ah. ndeysaan. yow nga dim nga war a dimbali sa bopp. Mhm. xool doo siy génnee. wallaahi nga nekk Sénégal di escroquer. non escroquer la ñuy wax escroquer. wallaahi ndeysaan. di yóbbu nit ñi naan da leen di jël di leen yóbbu ay police. Mhm. Mhm. nit sax boo yóbbu police day fekk nga jàng. mais jàngoo. xamoo dara xamoo dara. Cuuju Fuuta. ah yow jàngoo kenn xamu la. nga topp ñoo xam ne bëgguñu la ñu la entouré nga ni dañu la bëgg bëgguñu la. la preuve en est que am na ko. bëgguñu la dañ lay suuxal. dafa leer nañ. ñoom lu ñu bëgg si yow mooy suuxal la. lu xew foofu mu fanaan si ñun. wallaahi ñun dafa xew ñun xam ne lépp.

audio boobu noonu ña ko jël ña ko tàggat ña ci internet bi. ñëwaat na fii moo ñëw ba fii jox ñu audio bi. donc def foofu la nekk donc. xam nga ne dëgg amul daal wax dëgg yàlla. Saliou uh-huh. dañu waxante dëgg. Uh-huh. fu dëggul neewul fen a fay ne. dëgg la. ku bëgg dëgg fii ngay ñëw. Uh-huh. ñuy ñëw ñu ne aw naa ne yaa yaay gaynde gi yaay yaay yaay. yaay bukki bi <laughs> kenn buggu la. C'est intérêt de votre fa nous mais mais non Ahmed, ñun sommes <laughs> ñun là. Euh, je veux dire que nous on s'en fout xam ah, parce que nous, ñun bëgg nañ Cheikh Ibrahima Nous sommes nañ Cheikh Ibrahima Keita Nous sommes xam-xam bu leer Nous sommes là. Nous ñuy là. comprendre nga ñun Nous lañ soxla Nous sommes là Nous li là. Nous def ñun Nous lañ là Nous sommes là ñun sommes là. soxla sommes là, Nous sommes on a besoin de ça mais soxlawuñu nekk fii. léew yaa doo mës a daan kenn. Eh. loolu xam-xam sëñ bi boo mënul dangay ngay gàddaay. dégg naa kii naan euh, wàcc ma daan naa la. wóorul wóorul. ku daan ku daan la ngay féete kaw. dama leer nañ te Ibrahima Keita yaa féete kaw. wallaahi yaa mën a yaa féete kaw ndeysaan yow. Mhm. doo tontu. Mhm. doo wax ak ay ñu ñàkk ful yu amul xorom. te loo def ñu copier ko. yow li nga def nit ñoo xam ne amuñu mun ñu créé. non. li ñu seet du ñu li ñu xaar ba nit wax ñu ñu topp ñu topp ci. Cheikh Ibrahima Keita Cheikh nga témoignage Cheikh ci xam-xam nga ne da ngay wax te xamoo tuuti si li nga Cheikh Ibrahima Keita toog wax ci Cheikh Béthio yow nga jóge ne Boun Abdallah Dionne mu ngi hors Sénégal nga toog di sonal nit ñi di ubbeeku di wax yow un euh, yow yow Boun Abdallah Dionne bu ñëwoon am munoo ko recevoir. xamoo nu ñuy recevoir yi ni xamoo nooy nu ñuy waxee barki demoo ñaa nga toog fii nii di leen xas ci affaire football amoo xam-xam xamoo dara bëgg sonal nit ñi bu ñu fonta waay Cheikh Ibrahima Keita le roi Mandé mm. le Ninki Nanka le petit-fils de Soundiata Keita mm. kooku moom dina si développé quoi mm. dina si wax dëgg waaw ndax sëñ bi moom mm-hmm. lu ñuy jàngale si suuf la ñu koy jàngale waaye ñu koy jàngale si kaw bu ñëpp xamee fu ñu jëm duñu yegg duñu egg. alhamdulilah Cheikh Ibrahima Keita. guddal fan. sa mën-mën gën a yokk. amiin amiin. nee naa la fii. yaa ñuy wax ñu dañuy wax rek ku ma gis xam ne amee xamul mënul wax bu baax. wallaahi mais su ma amee fit di wax. Cheikh Ibrahima ma solle. def ci yow lu garaaw lu bëree laa la wax nii xamal ne liy dëgg. loolu la demee man su may wax damay su may wax damay xabtal. ndeysaan. damay mel ni ah. tey Cheikh Ibrahima Keita. ndeysaan le roi Mandé. le roi d'Afrique. yàgg fi xalif général de Soundiata Keita di faj nit ñi ñuy wér comme ni na sa jàmm yàgg. amiin yàlla Cheikh Ibrahima Keita. mbokki àdduna mbokki Sénégal yéen ko gisandoo lii moo nekkoon seen plateau. kaay fii ñu leeral waaw ndeysaan Ablaye Ablaye Ablaye ñu ngi lay jaar di la nuyu di la bëggee dafa génnoon def benn voyage bu ndawa a ndaw a am yu mu doon dox mais incha allah rabbi mu ngi ñëw léegi ci kàttanu yàlla fii ak suba di ngeen ko am ci plateau bi incha allah si kaay fii mbokk yi li moo nekkoon seen émission kay fi ñu leeral ma ci doon ànd ak Mouhamed le Gabonais. ziar waaw di la wax ne Cheikh Ibrahima Keita adresse benn la Liberté 6 Pentola. Mhm. Pentola nee naa la boo fa taxawee koo ne Cheikh Ibrahima Keita moom la kër gaa nga ne foo taxaw seen kër gi. waaw benn kër la ko Cheikh Ibrahima Keita le roi d'Afrique le roi Mandeng le khalife général de Soundiata Keita numéro bi 77 664 92. 92 du ma noppi di wax sama am di jàmm yi nag. Mhm. di leen bëggee di leen safoo. Mhm. waaw ndax yéen ñu may seetaan mm-hmm. maa leen di bëggee mm-hmm. di leen safoo mm-hmm. di kontaan si yéen lii nag yàlla rek yàlla rek moo mën ñun dañuy wax luy jëmee Sénégal kanam moo tax ñuy wax di gërëm nag samay grand frère ñoom Pa Fall ñoom Ibou Fall dëkk si Pikine di gërëm sama papa ñu ma may fit dooleel ma muy Bira Fall ak Moudiassine Fall waaw ñooñu moom damay kontaan si ñoom. parce que ñu ma demee ba am fit lu wax walla mu toll nii yàlla ak ñoom la. di wax sama yaay nag di xale sama yaay àjjana waaw ndax doom ju baax yaay ju baax mooy jur doom ju baax. Hmm. te sama yaay dafa baax yàlla na ko yàlla xaare àjjana. jërëjëf. Soundiata Keita ay sa maam le roi d'Afrique Soundiata Keita mooy sa maam. ku la lekk jee ku la naan màndi ku la rëy jëndum réew wàcc ma daan naa la wóorul ku la dana féete kaw waa jaa nii le roi d'Afrique le roi